bu mu yabalee yonentu bi alayhi salatu wasalaam jox ko diine ji nga xam ne mooy diiney dëgg ji mu fas yéene yëkkati ci kaw diine yépp mu féete leen kaw da koo jox moom subhaanahu wa taala jàppandalal ko yoon yi nga xamante ni ak sabab yi nga xamante ni moo koy yóbbu ci mu am ngañaay am ndam ci mission bi mu ko jox ba mën a jottali yónnent gi ko yàlla jox ne ko na ko jottali jaam ñi yàlla sant ko ko ne ko yaa ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik yàlla li mu ko yàlla santoon mu mun cee taxaw yàlla da koo jàppandaral yoon ndax yàlla bu nammee mbir da koy jàppandaral ay sababam mu bokk ci sabab yooyu nga xam ne moom la ko yàlla jàppandalal ngir mu amee ca ndam yàlla tàggatal ko ay góor tàggatal ko ay gaay yoo xamante ni ci ñoom la ko suñu borom subhanahu wa taala dimbalee ci ñoom la ko yàlla dëgëralee mu nekk ay nit yoo xamante ni nit ñu ya nit ñu yàlla sellal lañ waaye nit ñu sellal lañ ñoom tamit seen diggante ci seen borom ay nekkoon ay nit yu dëgg yu dëggu ñu taxaw ànd ak yonante boobu alayhi salaatu salaam jël seen alal ak seen bakkan jaay ko seen borom subhaanahu wa taala jëndee ko ngërëmal yàlla ak aljanna ñooñu la suñu borom subhaanahu wa taala di junj ci wax ji mu wax ne wa min annaasi man yashri nafsahu ibtigaa mardatillah am na ci nit ñi ñoo xam ne dañuy jaay seen bakkan ngir jëndee ko li nga xamante ni mooy ngërëmul yàlla subhaanahu wa loolu mi ngi ciy junj ñi nga xamante ni ñoom ñoo bàyyi woon seen alal bàyyi seen njaboot bàyyi seen lépp màkka seen diine ak topp yonent bi alayhi salatu wasallam dem Madina jaral leen ñu bàyyi fa lépp génn dem ku mel ne Suhayb ibn Sinaan wala ku mel ne Abu Dhar nga xam ne bi ñuy génn dañ leen a dog dogaale ne leen seen alal du leen topp ñu bàyyi fa lépp dem wuy ji yàlla subhanahu wa taala ci woote bi nga xam ne woo na leen ko ñooñu ñooy àndandoo yonent bi alayhi salatu wasalam yàlla moo leen tànnal boppam yàlla tàggat leen ñu nekkoon ay borom xol yu sell di ay borom yi xam ay borom yi jëf yu dëggu ñoo ñu ànd ak yonent bi alayhi salatu wasalaam dëgëral ko ak dimbali ko taxawu ko ci diine ji nga xam ne moom la ko yàlla jox ñoom ñoo dund ak yonent bi alayhi salatu wasalaam daan ko dégg muy wax ñuy xam li muy wax lan la ci jublu ñoom ñoo dund fekk na yàlla mi ngi wàcce ci yonent bi alayhi salatu wasalaam alquran ñu xam bëgg-bëgg yàlla ci ay ndigalam ci ay santaaneem taxaw ci loolu xam bëgg-bëgg yonent bi alayhi salatu wasalaam ci njàngale bi mu daan jàngale di ko leeral alquran di ko leeral wax yàlla ji ñu xam lenn lu ca nekk lan moo ko tax a jóg ak lan la ca yonente bi alayhi salatu wasalam bëgg ñu tënku woon ci loolu ñooñu lay suñu borom subhanahu wa taala melal ci alquran ay melokaan yoo xam ne melokaan yi ngëneel la ak melokaan yi tagg yu leen yàlla subhanahu wa taala melal suñu borom subhanahu wa taala wane ne ñooñu seen ànd gi ñu àndoon ak yonente bi alayhi salatu wasalam dafa teg woon ci ñaari mbir ngëm gu dëggu gu taxoon ñu sukkandiku ci lépp loo xamante ne bi jàngal na leen ko duñ ko fa weesu di dem di seeti ji leneen ndax seen ngëm gi ñu ko gëmoon dafa dëggu abubakar biñ ko waxee ne ko yonent bi nee na alayhi salatu wasalam dafa demoon ca asamaan nee na gis na fa nangam ak sàngam daf ne lu tee ba duma ko gëm ci loolu gëm naa ko ci ne yàlla moo ko yónni mu may wax waxi yàlla kon leneen lu ma waxati dama koy gëm ñooñu amuñu lu ñuy sikki sàkk ci liy jóge ci yonent bi alayhi salatu wasalam di ñëw ci ñoom seeti ji woon seeti ji woon woon leneen feneen dañ koo doyloo woon sëkk waaye bëggoon ko mbëggeel goo xam dañ ci seen ak ci seen loolu moo nekkoon taxawaayu saxaaba yi loolu moo leen yóbbu ci niveau boobu moo tax ñooñu yàlla seddal leen ngërëm gum leen gërëm fekk na ñi ngi dund ci kaw suuf saxaaba yooyu nag nga xamante ne ñoo nekkoon ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam dañoo jëfe woon li yàlla wax ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam moo gën a yey ci jullit ñi ci seen bopp ci li muy dogal ci ñoom bu fekkente ni yonentou bi alayhi salatu am na lu mu atte ci ñom am lu mu bëgg ci ñom musafa nok seeni bëgg-bëgg bakkan dañu jital li nga xamanteni moy li yonentou bi alayhi salatu salaam bëgg ak li nga xamanteni mom la atte ci ñom waaye du ñu jiital seen bëgg-bëggi kon ñoom seen diine jiitaluñ ci woon seen bëgg-bëgg topp gi ñu toppoon bi alayhi salatu dafa lu dëgg dëgg lu mu musana atte ci ñom loolu la ñuy ci ñom seeni bëgg begg bop non la sahaba yi meron ak yonent bi alayhi salatu salaam motax umar ibn al-khattab ben bis mu ànd ak yonent bi alayhi salaatu salaam yonente bi alayhi salaatu salaam mi ngi téye ci loxoom ñu ànd nekk ci benn mbooloo ak saxaaba yi omar ne ko yow yonente yàlla bi alayhi salaatu salaam man day maa ngi wax ne lépp lu mën a am ci àdduna bi yow yaa ma ko gënal ba mu des sam bopp yonente bi alayhi salaatu salaam wëlbati ko xool ko ne ko yow omar li yàlla war dëgg dëgg dëgg dëgg bu dee mbëgg gi nga ma bëgg mat na sëkk mooy man sax maa la war a gënal sa bopp omar ibn alxataab walbatiku ne ko wat naa ci yàlla ne fi mu nekk ni may wax ak yow yaa ma gënal sama bopp loolu du waxantu mbir la boo xam ne dañ ko doon wax dëggal ko ak seen jëf ak seen nekkin ak yonentu bi alayhi salatu te bo jangate sen dundu ak ni ñu won ak yonentu bi alayhi salatu wasalaam ak liñ sacrifier ci jàppale ko di nga ci gis luy firndel luy sédal ne mbëgg gogu lu dëggu la woon nekkul woon jëfi yuuxaloo ko puukare woo ko coow ko wax ak yu mel noonu waye dañ ko dëggalon ci sen jëf diko dundu nga gis ñu ci taxaw rek ci yenn mbir keroog bisu badar bi nga xamante ni yonente bi alayhi salaam génn na ak mbooloo mu ndaw bëgg a dem dogaale ji benn caravane boo xamante ni caravanu Quraysh la looloo leen taxoon a jóg yoruñu woon sax ngànnaay yu mën a xeex yàlla def caravane ba rëcc leen kuréel ga nga xam ne armée ba nga xam ne moo jóge màkka takku ñoom yor ay ngànnaay ak lépp waajal seen bopp ñooñu ñoom ñoo nar a dajeeg moom ñoom yonente bi alayhi salatu salaam par respect ak ni mu nekkee woon ak saxaaba yi neewu leen acca nañ leen dem xeexi daf leen a laaj seen xalaat bi mu laajtee abou bakar wax ko lam ci xalaat mu laajte omar wax ko lam ci xalaat mu continuer di leen laaj kenn ci mbooloom ansaar ne yéen waa ansaar dafa mel ne yéen la yonent yàlla bi alayhi salatu wasalam bëgg a xam lan ngeen xalaat ci mbir mii kenn ci ñoom jóg ne ko yow yonent bi alayhi salatu wasalam ndax ñun ngay laaj suñu xalaat ci lii xalaatuñ ci lu dul li nga xamante ne bi moom nga ci xalaat duñ la wax mukk li nga xam ne loolu la banu israil waxoon moussa bi ñu àndeek moom ñu dem ba xeex des ñu ne ko demal ak sa borom ngeen xeex ji ñun ñu ngi toog fii ñun duñ la mës a wax loolu suñu gëlee mii boo ñu xuusloo woon géej gi ñu traversé ko ba ca yaman dinañ ànd ak yow ci loolu duñu mës a dellu ginnaaw lii la ko kooku wax loolu delloo delloowaat ci xolu yonentu bi alayhi salatu wasalam ak cawarte ak mbégte mu xam ne ñi mu àndal dëgg dëgg dëgg ay góor lañ te seen mbëggeel ak ngëm gi ñu wax ne ci loolu lañ ko toppee lu dëggu la ci ñoom ndax mi ngi feeñee ci taxawaay yu mel noonu nga gis ne itam keroog bi nga xamante ni am na ñu ñëw piégé lenn ci ay saxaaba ne dañoo tuub dañoo bëgg ñu leen jàngal yonente bi alayhi salaam tànn juróom benn ci saxaaba yi nga xam ni tàggat na leen ba jàngal leen xam-xam ñu ànd ak ñoom dem jàngale ji leen ñu dem ba ci yoon bi ñu trahir leen rey ci ñoom ñett demaat ba ci yoon ba reyaat kenn ka ndax dafa bëggoon rëcc mu des ñaar ñu daal di leen di yóbbu màkka dem jaay leen yëfari màkka yi pour yéefari màkka yi venger wu ci ñoom rey leen ngir venger woo ko ñi nga xam ne ñoom ñoo dee ci ñoom ci Badr mu bokk ci ñoom Zayd ibn Dathina Zayd ibn Dathina dañ koo jaay Safwan ibn Umayya mu ne moom da koy rey pour venger woo ko ñu mbokk mi ñu rey ci Badr mu jël ko jox ko benn jaama bu tuddoon Nistas Nistas jël ko daal di koy jàpp yore jaaseem jëm ak moom ca fam koy reyee ji ñu dajeek Abu Sufyan boobu tubagul Abu Sufyan ne Zayd ah man de bëggoon naa xam lan nga xalaat ci mbiru muhammad ndax doon nga mbébét tey mu nekkoon sa place yow nga toog sa kër jàmm jàmm jàmm rek dikkal la dara bañ laa laal zeyd na ko waxuma la sax muy nekk sama place waaye fa mu nekk ca këram bugguma woon dëj sax di ko jam te fekk ne man maa ngi ci jàmm loolu la ko zeyd tontu kooku daal di yëngal boppam ne musuma gis nit koo xam ne ay àndandoom bëgg nañ ko mbëggeel gi nga xam ne ñi ànd ak muhammad bëggee nañ ko muhammad عليه الصلاة والسلام تتمت عروة بن مسعود الثقفي لولا لا وقت كروك بيغا خمانتاني تي صلح الحديبية ومكة يبال نانكو مدام نيغوسيي جاك ينانتبه عليه الصلاة والسلام بيم نيوي مجيس يار بيغا خمان صحابة ينكي نانكو اك ينانتبه اك رسبي بنيو ام تي موم ويغيل بنيو ام تي موم اك نيجي جفلن تيك موم بيم دلو مكة دفنة فونة دمنا فا تي بور يغا خمان نيجي تي أدونا musuma gis nit koo xam ne ay àndandoom fonk nañ ko respecté ko bëgg ko ni àndandooy muhammad fonkee respecté bëggee muhammad alayhi salaatu wasalaam jullit ñi ba dëgg-dëgg lislaam di nekk ci ñoom ak dëggu di nekk ci ñoom ak yar bi nga xam ne mooy yaru muhammad alayhi salaatu wasalaam nekk ci ñoom ñu koy jëfe seen bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu lañ ko doon dundee moo tax seen lislaam dëgëroon moo tax seen lislaam baaxoon moo tax seen lislaam ñoŋoon nga gis bi nga xamante ni xeex nañ keroog Uhud ba yàlla def lu bari ci ay julit daanu yonentu bi alayhi salatu salaam xelam dem ci kenn ci saxaabaam yi nga xam ne ñoo ko toppoon di ay magi sahaba yoo xam ni subhanallah muy saad ibn rabia mu toog ba mu yàgg mu ne est-ce que am na koo xam ni dina dem xoolal ma saad ibn rabia ndax mi ngi ci ñiy dund wala ndax mi ngi ci ñi faatu xelam dem na ci sax saad ndax jege gum ko jege woon ak cër bu saad am ci moom kenn ci saxaaba yi jóg daal di na ko man maay dem daal di dem wër ci ñi nga xamante ni bi ñoom ñoo daanu mu fekk fa saad bi mu ñëwee mi ko fekk mu dese tuuti ci ak dund lenn ci ak ci ay noyyi la dese ci ay nokki la dese mi ngi nekk ci mu jën ci njeexitalu dundam daanaka ruux bi di waaj génn bi mu ñëwee ci moom mu daal di koy wax ne ko yonentu bi alayhi salaam moo ma digal ne ma naa xool ndax yaa ngi ci ñuy dund wala ndax yaa ngi ci ñi faatu saad ne ko man maa ngi ci ñi faatu jottalil ma yonent bi alayhi salatu wasalam sama nuyo te nga wax ko ne ko saad ibn rabi' mi ngi wax ne yàll na la yàlla fay fay gu gën gu mu fay ab yonent ngir xetam yàll na la ko yàlla fay jottalil ma lolu yonent bi alayhi salatu wasalam te nga jottali ko sama nuyo ginaaw loolu mu ne ko ma sa xet ne len ma ngi len di nuyu te nga wax len ne len saad ibn rabi' mi ngi len di wax ne amoo gant ngànt fa yàlla bu fekente ni nit jàll na jéggi leen xuus ba ag ci yonentou bi alayhi salatu wassalam te fek ne amna len lu dess ci seen bakkan ci dund jaay len seen bakkan ngir ngeen défendre yonentou bi alayhi salatu wassalam bu kenn ag ci mom fek ne amna ci yéen dund gu dess ci yéen neena lol la ma wax teguma ca tuuti lu mu daldi faatu ma delu ci yonentou bi alayhi salatu wassalam daldi koy wax li nga xamne ne la saadu wax anas ibn malik dafa amone bayam bo xamni rakku bayam la di sa di Anas ibn Nadr moom lañ ko tuddee Anas ñu ko tuddee Anas ibn Nadr Anas ibn Nadr dafa tardé woon Badr teewewul Badr ndax Badr bi yonente bi alayhi salaam di génn waajalul woon ngir xeet ngir xeex moo tax ñi ko tàgg woon ci saxaaba yi da bàyyi ñu toog Madina loolu metti ko lool mu koy jàmbat mu ne tardé na xeex bi yonente bi alayhi salaam njëkk a xeex ñun léegi yëfi àdduna moo ñuy rate ñu koy ñu koy rëccu ñoom jaayonte ak yàlla moo leen occasion bu ñu jaayonte ak yàlla wane seen dëggu ci lislaam moo leen daan rëcc ñu koy rëccu foofu la ñu àggoon ci diine mu ne bis bu yàlla defee ma dajeeg xeex bu yonent bi alayhi salaam di xeexati dinaa won yàlla li nga xamante ni dëgg-dëgg moom laa koy won anas nee na loolu rek la wax ndax ñemewul weesu lu ëpp loolu waaye xam nañ lam ci jublu woon keroog bi nga xamante ni Uhud xeex bi metti na ñenn ci jullit ñi daal di reculer mu seen leen ñuy def loolu daf dafa dafa ñëw ba ci ñoom daldi na yow yàlla maa ngi jéggalu ci yow jëf ji nga xamante ni jullit ñi def nañ ko ci ñàkk a sab yonent xeex bi metti ba tax ñu reculer waaye maa ngi tamit dañ ci yow ci li nga xamante ni yéefar yi jóge màkka ñi ngi koy def di ko jëmale ci sab yonent mu ngi dajeeg Saad ibnu Muaaz mu daal di koy wax ne ko yow Saad fan nga jëm man de maa ngi xeeñtu fi mu nekk nii xetu aljana mi ngi may dugg mooy xam na ni day dem dal di dem lo ak yéefar bañu ray ko biñu ko rayé da xex ray biñu ko ray dafa metti ba kenn xametul ki nga xamanteni moy anas ibn nadr sëram mo ñëw xol ci yaramam di xol ba gis ben tup tup bu ñul lu melni ne dañuy wax tup tup yu ñul yooyu di nek ci yaramu nit mom la xol dal di ne kii saad ki anas ibn nadr la ñen ñi nenañ baram bi la xol ne ki anas ibn nadr la ci loolu lañ ko mëna xamé ndax jam-jam ak dor dor yiñ ko dor ay jaas dafa daggate yaram bi ba kenn mënatu koo xàmmee kon bi muy wax naan bis bu yàlla defee ma dajeeg xeex bu yonent bi alayhi salaam di xeex yàlla dina gis li may def kooku dëggal na taxawaayam boobu ci digganteem ak boroomam subhanahu wa taala ci ku mel noonu la yàlla wàcce ne min al muminina rijalun sadaqu ma ahadu llah alayhi julit ñi nga xamante ne ñoo ànd ak yonente bi alayhi salatu wasalaam am na si ñoom ñoo xam ne li ñu jaayoonteeg yàlla fasonte ko ak moom dëggal nañ ko loolu seede yàlla la فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا امنا سي نيوم ньо خامني دم نان امنا سي نيوم ньо خامني في ديس دي خاراندي واي موسو نيو سوبي لاغا خامتاني بي موم لان جايونتا وول سين ديغانتك سين بوروم ньо ньо نونو بوكو نا سي مصعب بن عمير مصعب بن عمير دون جن بو خامني دا فا نيكون جن بورجوا سي سي مكه بو خامتاني دوندو بو نيه لا يورون فوف بيمو توبي دوكو سي الاسلام mom la yonnati bi alayhi salatu wasallam yabaloon mu dem mak medina jitu ko fa pour préparer terrain bi wo nit ñi jangale l'islam mu nek xale waye mu jox ko cër ak responsabilité bob mu dem daanaka kër gu nek ci këri medina mu duggal fa l'islam la ta yonnati bi alayhi salatu wasallam di gaday kérok biñu génné uhud mom la yonnati bi alayhi salatu wasallam joxon li nga xamantene bi mom moy drapeau wu julit ñi mo nekkon porte étendard mom la ko joxon encore mu wat ko jox ko responsabilité bob kérok biñ ko rayé uhud ben sër bu mu tarax la yo la dessé sër boo xamante ni bu ñu ko ci bëggee sàng bu ñu muuree bopp bi tànk yi day feeñ bu ñu muuree tànk yi bopp bi day feeñ ndax jotul yonent bi alayhi salatu salaam ne leen muur leen bopp bi te ngeen jël ay xobi garab ngeen muur ko ci tànk yi jël leen ñax ngeen muur ko ci tànk yi moo tax abdul abdurahman ibn awf benn bis mu woor ba ngoon jot ñu indil ko ñamam mu tiim ko ne maa ngi tiim ñam bu mel nii di ko lekk àndoon nag ñoo xam ne ñoo ma gën ku mel ne Musab ibn Umayr faatu na sër buñ ko sàngee sax yóbbaale wu mu wëccax loxoom ci ñam ba ne lii mënuma koo lekk damay ragal mu nekk ne sama jëf yu baax yi ma def la ma yàlla subhanahu wa taala di jox fii mooy ñi muy wax ne adhabtum tayibatikum fi xayaatikum dunya wastamtaatum biha mu daal di waccax loxoom keroog dafa woor ba ngoon waaye lekk boobu dugul ci gémmiñam ndax xelam dellu ci musab ibnu umayr keroog bi mu daanoo ci oxot radiallahu anhum taxawaay yu mel noonu ay taxawaay la yoo xamante ni dafay wane dëggug saxaaba yi wane ni ñu jaayonte woon ak yàlla ci loolu lañ nekkoon soxlawuñu woon di ko feeñal ci ay ay ay cérémonie ak ay discours yu neex ak coow lu bari noonu lañ nekkee woon ak yonante bi alayhi salaatu wasalaam benn waaye dafa jóge ci àll ba ñëw jaayanteeg yonante bi alayhi salaatu wasalaam ne ko damaa dugg ci sa diine ji ngir topp la gëm la damay gàddaay ñëw nekk fii ci Madina mu jël ko dénk ko lenn ci ay sahaba ne leen na dem nekk ak ñoom mu ne fa di sàmm seeni gàtt keroog bi nga xamante ni xaybar julit ñi taxaw nañ ca xeex ba yàlla def ñu am ngañaay lañ ca jële ci alal yonente bi alayhi salaam ne ana suñu mbokk moomu fi ñëwoon fan yi te dugg ci lislaam ñu ne ko mi ngi fi xam naa dafa génn mu jël lenn ci alal ne lii moo ko moom joxal leen ma ko li lay won matam moom alayhi salaatu wasalaam ci ni mu jiite woon lislaam moy ñépp am solo ci mom ñépp am solo ci mom alayhi salatu wassalam subhanallah mu ne joxal leen mako li ñu dal di koy tek ba mu ñëw jóge ci gàtt yam nekkon di sàmm ñëw bi mu ñëwee ñu jox ko alal ji mu ne li lan ñu ne ko yonent bi alayhi salatu wassalam mo la ko jox waxul waxul dara dafa jubali ci dafa jubali ci yonent bi alayhi salatu wassalam dem ba ci mom ne ko li nga ma jox ni lan la mu ne ko li moy sa wal ci liñ gagné ci xex bi mu ne ko li taxul may ma lay topp li taxul may jaayante ak yow dama jaayante ak yow ngir ñu jam ma fii ma dee dajeeg sama borom mu dugal ma aljanna xeex bi daal di jot laata loolu yonent bi alayhi salaam daf ne in yasduqillaha yasduqhu bu dëggoo ci li muy jaayanteeg yàlla nii yàlla dina dëggoog moom na dëggu rek ci li muy wax wallahi bi ñu xaree xare jot ñu xare fa mu tegoon baaraam ba ne fa la fa la fa la bëgg ñu jam ko fa ngir mu dee yàlla dugal ko aljanna fa lañ ko fitt mu faatu mu dee ñu dikk ci yonante bi alayhi salaam ne ko waajaa ngi nii mu ne ahuwa ah, huwa ndax moom la ñu ne ko naam moom la mu ne sadaqa allaha fa sadaqahu dafa dëggu ci digganteem ak yàlla yàlla dëggu ci digganteem ak moom yonante bi alayhi salaam daal di koy jël jullee ko daal di koy ñaanal ne yow sama boroom sa jaam bii dafa génn gàddaay ci saw yoon mu xare ñu daal di koy faat mu seet mu shahid ci sa yoon man maay koy seedal loolu man yonent bi alayhi salatu wasalaam xadis boobu mu ngi ci sunan nasaai di xadis bu wér taxawaay yu mel noonu kon moo tax saxaaba yi seen ngëm yàlla ci kaw dëggu la tegoon seen bëgg yonent bi alayhi salaam ci kaw dëggu la tegoon ñu jaayanteeg yàlla dëggu ci jaayante gi ñu jaayanteeg yàlla moo tax bu yàlla waxee yonent bi alayhi salatu wasalaam ne ko huwa alladi ayyadaka bi nasrihi wa bil muminin yàlla moo la dëgëralee ndimbalam dëgëralee la ñim la booleel ci jullit ñi gëm yàlla ñu topp la loolu lu wér la yàlla xamal ko ne moom moo jël seeni xol dëppale ko ñu ànd ci kaw njub ànd ci kaw mbaax muy dëppook xol gi nga xam ne mooy def ci ñoom ñu suude dindi ci ñoom ay ñagas-ñagas ak ay féewaloo yi nga xam ne mooy indi ay xat-xat ak indi ay xiiroog ŋaayoo ba noppi tamit mooy li leen di affaiblir ndax bu fekkente ni dañoo ànd seeni xol dëppoo loolu daf leen di gën a may anam boobu lañu àndee woon wa allafa bayna qulubihim te loolu xéewal na gulé yàlla defal go xamni bo jëlon alal ci aduna yépp nga nga investiron ko pour recruter nit ñu melni mëno leena am law anfaqta ma fil ard jamian ma allafta bayna qulubihim walakin allah alafa baynahum bo financé won alal ci aduna bi yépp ngir recruter ñu melni nga xamanteni recrutement bi ci xol li nekk ci xol bi lay ñëkke bala ngay xol jëm ji loolu mënuloo ko ndax li nekk ci xol yàlla rek moko ko xam kon yàlla mo lay recruter ko xamni ci xolam lay recruter recruter lay kooka sahaba yi ci seen xol la len yàlla recruter lolu yonent bi mënu ko won defal bopam motax yàlla ne bo defon alal ci aduna bi yeb do len mën recruter kon yàlla mo la len recruter yàlla ne ya yaa ayuha nabiyu xasbuka allahu man ittabaaka min almuminin kon yow yonent bi yàlla doyna la ñi la topp ci ji gëm yàlla tamit nañ la doy wala ñoom itam yàlla doyna len ñaari tekki yépp dañ ko koy tekki kon yàlla nañ yàlla boole ci ñi nga xamne dañuy bëgg ñoña xam leen xam seen dayo ci l'islam tay roy ci ñom te fexe ba am l'islam ju melne jojo ñoña amon ngir yàlla gëreem ñu ngir itam suñu dund l'islam nek lu amal njariñ l'islam ndax sahaba yi la seen dund l'islam amalon njariñ l'islam ndax bañ fi nekké la l'islam teddon bañ fi nekké la l'islam yëkëti yëkkatiku won bañ fa nekké la l'islam ñongon bañ fi nekké la fi ay julit yu yàlla gëreem nekkon di dox ci kaw suuf kon bu fekkente ni ñun roy nañ ñoña jéem a fexe jaar ci mbaax ma ñooña nekkoon insha allahu loolu dina delloowaat lislaam ca nam meloon te looloo taxoon alimaam malik doon wax ne lan yasluha axiru hadihi l umma illa bi ma saluha bihi awaluha li lenn du baaxal mujjantalu xeet bi lu dul la baaxaloon ña nga xam ne ñoom ñoo jiitu woon kon yàlla nañ yàlla boole ci ñii roy ci ñoom rabbana atina fi dunya xasana wa fi laxirati xasanatan wa qina adab annar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم وفقنا لهداك واجعل عملنا في رضاك اللهم وفقنا لعلم النافع والعمل الصالح اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك ورزقك وفضلك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قوموا الى صلاتكم يرحمكم